séddale te mën koo muñ donc loolu la sëriñ la sëriñ digle woon loolu nag mooy maandu ci séddale yàlla dogal na def naa wax naa ci lu bari génne nañ xaalis bi jënd nañ ma ceeb bi daara bi muy ceeb bi ak diw gi ak suukar si indi nañ ko mi ngi nii danañ def nañ danañ def quatre vingt di sept lieux de distribution muy village yi nga xam ne dafa bootu ci commune Touba te nga xam ne fenn fu ci nekk am na quota ab cër buñ ko farale ñu war ko yóbbu foofa jox ko waa gox booba muy village yi yi nga xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi ak yi nga xam ne ñi ngi bootu ci commune bi te nekkuñ ci biir dëkk bi euh, def nañ programme bi ci bu demee ci village bi naka lay demee képp koo xam ne ab chef de village nga woo nañ la waa dëkk ba yëkkati programme bi wax ko chef du village bi ne ko boo demee da ngay yow yaay président commission bi da ak délégué de quartier bi ak ilimaan jafa nekk ak ki jiite ndaw yi te nekk foofa ak ki jiite jigéen ñi moo xam bàjjanu gox la moo xam présidente groupement des femmes la représentant commune bu fekkee conseil dëkk na foofu ab conseil dëkk na foofu moom lay commune bi délégué bu fekkee ab conseil nekk fa commune bi dana délégué ko fa nekk loolu la ñu def wax ne leen bu ngeen ko bu ngeen koy séddale na ñoon ñëpp toog bu ñëpp toogee ngeen xalaat ñi ko yeyoo foofa ngeen jox leen ko ci procédure bi ñu waxoon kenn ku ci nekk turam santam ni turu soxnaam ak numéro carte d'identité numéro téléphone am ak liñ ko jox ci moo xam ceeb la moo xam diw la moo xam suukar la loolu wax nañ leen ko def ko ay bulletin kayit yu leer jox leen ko xaman ne leen bu ngeen ko defee ba noppi bu ceeb bi nag du lu ñuy dugal ci magasin du lu ñuy dugal ci biir kër gi nañ ko teg wàccee ca pénc ma wala ca jàkka ja nit ñi daje fa séddoo ko ku nekk la nga ci am nga yóbbu ko du lu ñuy fat yooyu procédure lañ leen tegal woo leen kenn ku ci nekk leeral la ko wax la ko jox la kayit